may ñaan sénégalais yépp nag dama leen ko ñaan mag ak ndaw góor ak jigéen ak ku munti doon ci senegal maa leen di ñaan nañ ko remplacer lii ma wax nii mu doon message boo xam ne sénégalais bu bëgg jàmm rek na ko def parce que nag li ñuy def nii dañuy dànkaafu dañuy anticiper ngir bañ rek sa réew mi dem ci fitna. te loolu war na doon yitte sénégalais bu ne ma bëgg nag sénégalais bu ne lii may ñaan na ko sénégalais bu ne def muy message boo xam ne dañ koy yónnee Macky Sall sénégalais yi ne ko d'accorduñu ak ni ngay def d'accorduñu ak lii ngay ruumanaat waaye d'accorduñu ak jiwaay jaay doole bii nga nekkee su ñu ne woon dañuy génn manifester am na sénégalais boo xam ne mënu koo def waaye li may wax ñépp mën nañ koo def ba ci njëkk mooy ëllëg samedi ci guddi ñaan naa sénégalais bu ne ñu def li ñuy wax concert de casserole def nañ ko defaat ko waaye dama bëgg bii nii yi ñu mës a def yépp réussite la alhamdulilah macha allah waaye dama bëgg bii bu dee yële fukk lañ ci amoon bii dama bëgg ñu am ci juróom fukk dama bëgg ñu ful ko ba àdduna yépp parce que buñ ko defee àdduna yëpp da dafa tiim Sénégal fi mu toll nii télévision tubaab yi dinañ ko wone télévision arabe yi dinañ ko wone télévision asiatique yi dinañ ko wone fii Sénégal ñëpp dinañ ko couvrir mu doon message bu am doole boo xam ne message pacifique la grenade tàkkul xeer sànniwuñu ko waaye message bu rëy la ñuy délivrer pour Sénégal yëpp wax ni Macky Sall lenn rek lañ la ñaan deseluñu la dara jox nañ la ñaari mandat def nga fi lu ne ñu baal la dañoo bëgg nga dem ci jàmm bàyyi réew mi ci jàmm dañoo bëgg nga bañ fee yee ay fitna dañoo bëgg jaay doole gi jeex dañoo bëgg tànn candidat yi jeex ndax du yow yaa ko war a tànn ñun sénégalais ñoo ko war a tànn loolu sénégalais bu ne mën na ko taxaw sa balcon wala sa teraas walla sa buntu kër wala sa ëtt jël sa kastrol jël sa ndam sab ndab daal di tëgg pendant trente minutes diggante vingt heures trente ba loolu la ñu ñaan Sénégal yi kenn defalu ko Ousmane Sonko ñun suñu bopp lañ koy defal message de paix la bataaxal la boo xam ne ñu ngi koy envoyé Macky Sall ak ay ñoonam pour wax leen ni jàmm la ñu bëgg bu leen fi fitna yow mii yor sa taxi wala sa camion wala sa kaar njaganjaay wala sa super yow mi yor sa jakarta mën ngaa def sa klaxon yow mi mën a sànni sa pétard sax sànni ko waaye àdduna bi yëpp dégg senegal ni sénégalais yi jàmm lañu woo jàmm lañu woo Macky Sall jàmm lañu bëgg mu doxal te dañu bëgg mu bàyyi fitna bi mbirum concert casserole nag déggoon nañ fi lu ne may ñaan sénégalais yi ñu bañ a déglu waxkat yi nga xam ne euh, lu xew ñu jóg ndax daaw bu ñu fexee concert casserole nit ñi dañ ne suñ defee concert casserole day um nawet bi du baax defe naa nawet daaw bi ci nawet yi gën a naat yi ñu mus a am la taw na sax ba nit ñi naan ëpp na kon nañu bàyyi superstition yi gi demee noonu lii moyen la rek boo xam ne moyen de communication te jàpp naa ni gëm na yeneen moyen ndax ba léegi moo gën ñu ne génn nañu ba xeex nañ ay nit gaañu nañ ci lii lan moo raw lii ci bëgg jàmm bàyyi nañu loo loo xam ne mënoon na jur fitna tey tey tey ñu remplacer ko loo xam ne mën na communiquer te du jur fitna ma ci woo sénégalais yépp muy benn ñaareel bi journée demain bi samedi ñaan naa sénégalais yépp ku nekk na nga jël lenn loo xam ne lu xonq la moo xam ab morceau boo takk sa loxo la wala simis boo sol la wala mbaxane la wala tubéy ak lu nit mën a am rek mais na kenn ku nekk am lenn lu xonq luy màndargal ni lii Macky Sall yi def àndoo ci te jàmm lañu bëgg ci réew mi ñetteel bi mooy ci parti bi journée suba bi na doon journée brassard de liberté mooy lii ma takk nii nga xam ne parti bi da ko lancé woon muy safaanu brassard électronique bi nga xam ne bracelet électronique bi nga xam ne ñu ngi koy expérimenter ci Pastef kese nag ndax dafa mel ni waa Pastef rek lañ koy takkal ci loo xam ne ci ay caaxaan la ñu ne ñun am nañu bracelet boo xam ne mooy bracelet liberté ñu defar ko Sénégal yi macha allah tabarakallah jib si parti bi fu nekk ñu koy laaj fi ne nii ay milliers milliers joxe nañ ko te kenn ku ne boo ci jëndee. benn màndargal buy wane ni ànd nga ak nun ci projet waaye ñaar màndargal it buy wane ni jël nga sa contribution joxe ko parti bi pour dooleel parti bi mooy mille francs bi ngay joxe mu doon loo xam ne nag dafa mel ni général leen ñoom dérangé nañ leen ndax soo seetee communiqué gouverneur yemul sax ci manifestation yi dem na ba suñu ndaw yi waa GPS nga xam ne ñu ngi def liggéey bu am solo dem dugg ci marché yi di placer bracelet yi commerçant yi di ko jënd chauffeur si di ko jënd ouvrier di ko jënd loolu la muy ut ci communiqué gouverneur ba kon dama bëgg suba mu doon journée spéciale brassard nga xam ne bracelet du moins nga xam ne ci siège yi fépp ci siège parti bi ci marché yi ci gare routière yi na nit ñi dem dem jëli bracelet yi